jërë ngeen jëfatee te mbokki internet yi beneen pour nouvelle rek bu wàccet rek si patriote yi wala sax si kooke di Ousmane Sonko mu doon kooka di Moustapha Guirassy ñu wax na rek moom dafa waxoon na rek candidat attire la rek si élection yi ñu dëgmal deux mille vingt-quatre moom kooke di Moustapha Guirassy yaakaar ñu bëree bëri ràmmee nan ko xàmmee nan ko si langu politique gi te ràññee nan ko bu baax a baax moom kooke di Moustapha si moom nag mu ne rek dafay daate retirer li nga xamante ne rek. moo di ak candidature am jëm rek si élection yi vingt 2024 moom nag ba mu waxee loolo dafa sa taftal na rek kookee rek lay jàppale mu di ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndaxte nag jàpp na ne moom dafa bëgg réew mi te bëgg naa tamit jàppale li nga xamante ne si ne moo di réew mi looloo taxit mu retiré li nga xamante ne si rek moo di ak candidature am rek wax na kookee rek lay jàppale mi ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko te patriote yi moom lañ gëm moom lañ yaakaar na tamit moo mën a defar rek nga xam ne moom moo di Sénégal ginnaaw rek loolee kooke di Moustapha Guirassy ba mu ko xamee loolu rek la wax ne moom rek dafay daal di retiré candidature am jàppale ki si ne moo di président Ousmane Sonko loolu nag mu doon beneen nouvelleti bu ñëw rek wàccati si ñi xam ne ñoom ñoo di patriotes yi patriotes yi nag nemmeeku nañ ne fan yi rek ay nouvelle moo leen di dikkal moo xam ñeneen ñu xamante ne si ne dañuy sa làng ga pour bëgg a ñëw rek adhéré wu si ñi nga xamante ne si rek la moo di Ousmane Sonko focus 2024 Ousmane Sonko candidature lay doon.